gis nga wax ñaari baat baat bu ñëpp war a bàyyi xel te di ci réfléchir di ci orienté mu ni dem ba bejjaaw di xëccoo ba mën a la rëcc rëy na ku dem ba bejjaaw la rëcc rëy na li gën garaaw nag mooy li la rëcc ak ki rëcc gis nga li la rëcc mën nga defi pexe ba jotaat ci mais ki rëcc pexe du tax nga jotaat ci kooku lu mat a bàyyi xel mais lii la rëcc dafa delluwaat ci baatam bi mu waxoon ni ku yàlla yéegi ba noppi wëlbatiku gis la ngay defi pexe yu la fa mu wàcce la ku yàlla yéege ba noppi wëlbati ku gis la ngay defi pexe lu la fa téye mu wàcc yooyu yëpp yu mat di bàyyi xel la ci biir mu des nag wàllu stratégie bu ngeen gisee ñun yi xew ci jamono nit ñi dañuy soow rek ko defee man ngi ciy suivre sunu oustaz bi Alioune Sall fa tabaarakallahu ci benn débat nga xam ne dafa am ay nit ñu nga xam ni danaa sawar ci bu ñu bokkee ci dara ma déglu waaw ndax damay xam ni lañuy wax ci très important te ci xikma lay tegu moo tax débat bu mu koy gis danaa koy suivre waaw fa tabarakallah maa koy yóbbante aussi ci sama rakk bokk bi ci bëccëg di doom ci Serigne Mbaye Sy Mansour waaw man ko boo demee wax ko ni ko maa koy suivre ci ubbi bu ubbi ubbi te burtu bi ah wallaay wallaay wallaay di ko suivre man ko waxtaan bi gàtt na mais c'est tellement important waaw waxtaan bi matul quinze te li mu ciy dégager c'est formidable nga xam nga c'est tellement fondamental waaw looluy tax nag méthode yooyu gisee ma di ko yi bare na du dugg ci détail xëy na Europe ñu ngi organisé wu wax ni dañu am ñu ñu bëgg xeexal mooy ak dawlal islamique ça c'est ñoom waa Europe laa wax parce que al-gharbu asbaha alaman góor gee ko waxoon bu dee arab yi Sëriñ Muniru Saar dafa waxoon ni arab yi ñoo ñu gën mag ñu jëkk ñun ñu gën leen mag mag ñu mujj looloo tax pour ñun ñu coordonné ak ñoom du yomb gis nga muy les pays du golfe muy fu mu mën a doon alal yi ñu amoon yëpp yëpp investir nañ ko ci senegal ci ay mouvement pour ñu xeex Moustarchidine yëpp a ngeeg man document yeeg yëpp mu ngeeg man ay leader yu nekk fii bind ay lettre yónnee ko ci institution yi copie lettre mu ngeeg man mais li leen jaaxal ñoom mooy mouvement yooyu ñu doon financé ak xaalis yi leen jox yëpp daanu nañu ci kàmb te al mustarshiduuna ma zaalu xayya kon nag xayya ala salaa xayya ala al falaax façon bu ne defe nañ ko pour ñu éliminer